waaw ren nag at période di Covid bi naroon nañ ko sax fomm mais lu munta ñàkk moom da ngay góorlu rek def ko ba pare comme li ma waxee gis ngeen Rama Jow euh, Hélène Sisters of Africa at laxaat euh, ñëw fii gis ngeen ne vraiment euh, stylistes yi ñun ñoo ko bëgg man su ma bañee tax dañ may pousse ñoom ñëpp may ma courage ba pare tamit ñu décider ñun ñëpp d'un commun accord ne dañuy génn dakaar def ko ci espace bu rëy boo xamante du ñu am problème de distanciation sociale euh, respecté yëpp jox nit ñi masque Euh, ma jox ñu ni gel jël température bi ba pare en même temps euh, mettre en avant benn mode éco-responsable benn mode boo xamante day comme la ngeen ci gis rek dañuy defar suñu cuub yi suñu daamina yi euh, wane vraiment artisanat bi at artisan yi ñu liggéey parce que lu bëri ñun rek la ñu gis styliste yi su kanam du ñu gis tailleur yi du gis artisan yi léegi ren daal dañ ne dinañ leen njukkal wan tamit te suñu discours bi yëpp suñu promotion yëpp te aussi c'est pour les les mettre valeur loolu daal la ñu bëggoon ren ba pare tamit euh, sur place bi ñu demee ba surplace place tamit taxul nit ñi ñëw euh, dañuy wax nit ñi ñu ñëw seetaan ñu par pay per view benn innovation bu ñu indi fii mooy ne ñun génn nañ pour éviter groupement bi mais nit ñi mun nañ toog seen salle euh, seen néeg seetaan ñu affiche point comme su ñu duggee dinañ gis défilé bi yëpp dinañ gis sax préparatif défilé bi te man je pense que sax dina gën a rafet ñu fay nekk parce que dinañ am ay image nuñ koy waxee drone xaw waaw image de drone yi dinañ euh, foog naa la ngay gis foofu euh, ñun ñi fa nekk duñ ko gis loolu daal la ñu indi woon kon innovation tamit mm, jàpp ci dal dëgër ne duñu bàyyi parce que euh, année bi ñun pour ñun la presse c'était difficile mais pour nous c'était plus difficile encore c'était vraiment plus difficile parce que ñun dañuy jaay ñun ku ñëwul jënd duñu duñu baaxle xam nga duñu télé buy diffuser donc c'était très difficile donc trouver lii daal astuce la woon ci pendant pandémie di début bi at ñii sax defoon nañ benn défilé bu tuddoon défilé confinement boo xamante ne ci portable lañ doon filmer man yi ku nekk filmer sa bopp léegi tamit mm, fin d'année bi ñu indiwaat lii koo xamante ku nekk da ngay toog sa kër nga seetaan 1000 francs kese pour xale yi mën a seetaan parce que ñun public bi ñuy euh, xool tamit y a beaucoup de jeunes ay élèves ay étudiants ñu xam ne affaire bi tamit day métti si ñoom mais ñu mun cee jàpp loolu daal la ñu indi woon ren. fan ngeen koy defee exactement. alors euh, dañu génn euh, wëtu entre at ak Ngéxoox la ci àll ba noonu. di waay ci guy yi foofu la ñu dem daal gis benn tool bu yànj <laughs> ñu teg fa suñuy sees suñuy banc ak sunu podium. Euh, nara rek innover et je pense que xam nga euh, sénégalais lenn la ñu am vraiment te ma fier ci te ñu ñëpp ñu kii ko mooy ñun dañoo dañoo silwise ñun Sénégal xanaa su waxee loolu dañ naan dañu dañu chauvin waaye ñun sénégalaise dañoo silwise dañoo élégante te lu ñuy def vraiment muy yëre tubaab bi muy yëre wolof bi di ngeen gis ay collection yu extra exceptionnel ba pare ñu boole ci nag boole ci artisanat bi foog naa ne vraiment euh, défilé boobu man maa koy organiser de mais man yàkkamti naa ko seetaan parce que yàkkamti naa gis guy gi yàkkamtum naa gis a Jaw yàkkamti naa gis Soofaatu yàkkamti naa gis ay Versailles ay ñoom laxaat ku nekk indi sa affaire ça va être extraordinaire daal ci ni ma ko mun a waxee on compte aussi sur vous la presse parce que presse bi suñu amul presse bi ñun du ñu mun a diffuser xam nga c'est très important et du pour wax leen li mais je je remercie la presse parce que c'est grâce à la presse que idée di mun a jàll. c'est grâce à la presque ñuy mën a continuer di def ñuy def et c'est grâce à la presse tamit diaspora bi parce que jaspora bi lu am solo la Sénégal di ñu mën a gis fa foofu fu nekk parce que ku nekk foofu ci confinement bi ñu tëj la liggéeyoo nga sonn mënoo gis say mbokk xam nga soo taalee télé bi gis ay défilé ay xale yu rafet ay tenues yu rafet je pense que sa xol dina sedd te di Sénégal te aussi euh, aussi wane fierté boobu que ñun mun nga moderne mun nga sol robe moderne mais mun nga africaine en même temps l'un n'empêche pas l'autre du ñu choisir loo rek ñu sol ay mamboy wala ñuy sol ay jean ñun waaw surtout a vulgaire mais loolu du man rek de loolu ñun ñun sénégalaises yëpp la fii Sénégal ah c'est rare nga gis fii xale yi di sol yu yi de même xale yu ndaw yi y a une élégance sénégalaise loolu moom du man rek di ngeen ko gis styliste yëpp styliste yëpp ay defar ay yére yoo xam nga xam nga yére mun na sexy te yiw xam nga sexy euh, vul mun na euh, pas vulgaire kon laa bëgg a wax xam nga sexy du vulgaire mun nga sol benn robe mu nii comme mu nii ñit ñi gis la mu rafet mu yaa ngi te doo wane sa benn cër vingt stylistes ñooy participer ren vingt stylistes ñooy participer dont am na ay étrangers sax yu ñëw Moussa bon comme il est sénégalais mais y a il vient de New York am na benn euh, euh, gel bu jógee Niger am na kuy jógee Bissau am na marocaine dama ko fàtte ak camerounais marocaine Gada Al Lamgari la tudd Euh, euh, Camerounais parfait et Cuba euh, Niger Zamani Accessory la tudd at ki jóge Bissau Bibas la tudd alors thème bi wuy éco-responsable la éco-responsable vraiment moo naam mooy mooy mode bu respecter sunu écosystème mode bu respecter environnement bi mais mode bu aussi buy respecter artisanat parce que lu lépp loo gis muy artisanal du loo xamante ne vraiment day day polluer ñun li ñu def du ay 10 millions de pièces ay cent millions de pièces ñun koo ci gis ni lu mu bëri bëri doo gis kenn ku def 100 pièces ci benn robe. bu ñoo ko gën a xam ko waa Sénégal. loolu dëgg la. Euh, nga xamalaat ñi waaw loolu dëgg la mais sa fait c'est parce que tamit euh, dama dëkk lu yàgg pari yàgg pari te foofu laa commencé avant ma ñëw fii nii ba pare xam nga jaspora bi dañoo dynamique. dañuy wax loolu rek dëgg la diaspora bi dañoo dynamique te diaspora bi suñu toogee foofu suñu gisee kuy def dara fii dañuy sawar di la di la plébiscité ba pare tamit euh, diaspora bi lu tax ñu xam ma bu baax mooy depuis maintenant dix ans damay def benn événement bu tudd Black Fashion Week Paris ma ko doon def Paris di ko def Montréal dem ba Brésil di ko ko def diaspora bi yëpp di ko suivre loolu moo gën a tax ma siiw ci diaspora bi en Amérique en Europe parce que dama doon def euh, ville yooyu yëpp mais Adama Paris styliste sénégalaise la euh, on m'appelle Adama Paris parce que à l'époque sama papa diplomate la woon et on avait deux paires de jumelles parce que man seex la awa donc pour différencier ñu dañ doon wax Adama Paris Adama bu Londres Adama bu Lyon noonu la yëf yi demee ba may dem di jël sama turu entreprise ma jël ko noonu la demee mais je suis une digne sénégalaise une saalum Saloum Saloum et voilà quoi donc ñëwaat fii ñu bëri xam nañ ma am na ñu bëri ñoo xamante ne depuis mes débuts journaliste ñu may suivre et ñu ngi ci daal dañuy jàpp day metti mais dañuy jàpp comme ñëpp daal en fait euh, du ma toog tamit di plaindre parce que affaire bi ci ñëpp la métti dañuy ñaan nag nag gouvernement bi ñoom tamit suñ si mënee jàpp chaque année rek ñu ñaan ñu mën si jàpp parce que aar bi du loo xam ne dañ ko tuutil nañ ko trop daal du ñun rek sax ci woy bi ci euh, surtout artiste peintre yi ci artiste culture ci boppam la ñu tuuti la ñu ndawal te culture luy indi ñun ay ambassadeur lañ daal man fu ma dem nit ñi reconnaître ma ci ci ci mbedd mi duñ ma reconnaître comme française dañ may reconnaître comme sénégalaise donc loolu tamit comme genre yu Ndour yi je me je me compare pas à lui mais je suis fière de pouvoir dire que man ambassadeur laa comme ñooñu xam ne dañ leen fi fekk ñuy ñuy ñuy avancer le Sénégal ba pare une dernière chose bu ma bonoo fi tamit dañoo tàmm gis mode bi comme ñun daal ay foyukaay la daal te ñun ay chef d'entreprise lañ man am naa employé yoo xam ne ñu bëri amuñu nombre d'employé boobu ay chef d'entreprise lañ man dëgg la ibbi naa fi télé ibbi naa fi lii ibbi naa fi lañ ñeneen tamit am na ñoo xam ne dañu am ay yeneen business te loolu la ñu dul plébiscité xam nga su même journaliste suñu ñëwee di poser ay questions ay affaires yooyu toujours aspect créatif bi rek la ñuy wax mais duñu wax mukk ci aspect business bi te fii nii ku nekk ay jaay te suñ ñun lii mooy sunu dundaal dundaal ñun yéen li ngeen di fayee ngeen di ñëw di ñu kii ñun noonu la ñuy dundee di fay ay nit ay tailleur ay livreur ay boutiquier ñu ñu téyeel donc j'aimerais bien que ñun ñi xam ne ay entreprise lañ ay chef d'entreprise lañ euh, et on a beaucoup de gens qui comptent sur nous derrière on fait vivre des familles te loolu tamit lu jar a plébiscité la